ورضي الله رضا خالدا عن الاولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله اسوه حسنه بوكي بس بس بوكي تالي بيتن الطريقه التجانيه سين بوكم تالي الحاج عبد العزيز فالموديل سوات gannaaw leeral yi ma indi woon ci waxtaan bi weesu ci tontu ki nga xam ni tabaarakallahu moo doon wax ni ñu fekk la ngay yor sa kurus di wird ñu lay nuyoo ngay fayee lu dul li ñu la nuyoo du sharia ñu indi ci ay leeral kuy wut dëgg doy na la koo xam ni kii nag bu yàlla taxawoon ni la man yàlla maa santaane yi du tax nga bàyyi la nga gëm ndax sa bopp la gënal yàlla kooku yow amuñu ak yow affaire fa tabaarakallaahu beneen bi ci des itam mu wax ni li ñu wax ni yenent bi sallallahu alayhi wa dafay teew ci mbooleem malaanum wadifa yi ak xadaratul jumaa yi indi nañ ci liñ ci leeral duñ ci dellu siwaat waaye waxoon naa leen ni sëriñam dañ ma yónnee benn vidéo muy wax ci azzikru bi lafdil mufrad te moo di baatu allah allah mu wax ni li ñuy tegtaloo en tant que jullit mooy wax yonent bi wala jëfam maanaam santaaneem wala jëfam mu ni tax ndax yonent bi mat na e, jël baatu Allah Allah def ko muy zikkar wala saxaaba yi mës nañ ko def moom loolu la weddi mu ni comme musuñu ko def nag e, amul fenn fu nit mën a tegtaloo ci diine pour mën koo def fofu la bëgg ñëw mbokk yi moom mi wax wax ji jàng na qaida bi may bëgg wax waaye nag ñoom maal asaf sunuy weddi bu ñu dee indi aaya du indi aaya ba ba mu mat dañuy seet lu leen ci arrangé ñu wax ja bu ñuy indi xadis léeg-léeg dañuy dagg xadis ba duñ ca indi lépp ba bu koy firé it ñu firé ko na mu leen arrangé ba ñu fekk hadith bo xamni wirul waye mën dëggal seen position ñu indi ko sax ca mbokk yi mom mi wax lolu jàng na qaida bi wax ni at tarku la ya'ni at tahrim at لا يعني التحريم at قاعده بي واخ ñu ni yonent bi deful nangam firiwul ni loola dafa xaraam dinaa ko leeral alladi yadullu ala tahrim thalatha thalathatu ashya mbokk li xaraam ñett moo koy firndeel ni xaraam na ci shariatan benn baatu nax yu ñëw ca baatu tere ni bu def ولا لفظ التحريم باتو نانغام حرام نيو تي شريعة ولا ذم الفعل نانيوكو وخني باخول كوكو ديف بوكو تي كودولو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نياتي بو نيوول بو نيوول ريك منو لوكو تود تحريم منو لوكو تود لو حرام ndax la tahrim illa bi nass li haram lerna ma indi ci misal bi jëk bi moy lo xamni ni tere def ci ay ñëw ni bu len def mathalan alquran alkarim dafa wax ni wala tankixu ma nakaxa abaaukum min annisa illa ma qad salafa innahu kana faaxishatan wa maqtan wa saa sabila kooku laa bi tiri tere bul def bu leen def da ca feeñ mu leer nañ yàlla nee na bu leen bu ngeen dee denc soxna nee nangeen na fa romb koo xam ne kii seen woy juru góor mës na koo denc na ko fa romb teg leen ko fa ni tege kooku ñu gis ni yàlla sunu borom daf ko tere doonte tuddul baatu xaram waaye dafa ni bu def kon dafay dugg ci li xaram ñaareel ba mooy texte boo xam ni baatu taxrim baatu xaram da ca dugg alquran moo wax ni xurrimat alaykum ummuhaatukum wa banaatukum wa axawaatukum wa ammaatukum wa xaalaatukum ila axiril ayati alquran dafa wax ni yow góor yow mi toll ci jël soxna wocc fa sa ndey ji jur wocc fa sa doom bu jigéen wocc fa sa sër wacc fa sa bàjjan wacc fa sa tante ba aaya ba jeex kon loolu dafa wax ni mat gis nga waxul sax yi man yàlla maa xaraamal daf ko def euh, euh, euh, mabniyun alal ma maanaam dafa mel ni ngay wax nit rek ni ko tere naa la wala ñun la tereef nañu la tere nañu la kan moo la tere nangu wax ki tere kan la xurrimat mooy day wane ni yii même bu ko yàlla xaraamalul woon terewu ko woon jom ak jukko war na mën a tax nit ki romb leen fa moo tax xurrimat la jëfandikoo kooku mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy ñu ŋàññi jëf jë sikk ko ba nappi ka koy def ñu xupp ko wan ko ni ko lala la cay fekk du doon lu baax mbugal moo la ciy fekk mis la li yonent bi sallallahu alayhi wax ni man ghashana fa laysa minna waaw koo xam ni dangay ngay ger waaw da ngay da ngay tromper nit ñi danga ñuy tromper di deful lu naka sudul noonu waaw yor sa soow di ko jaay soow mi barewut nga dolli ca ndox naan soow piir la xeetu yu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne yaa ngi koy def nee na considéreel sa bopp ni bokkutoo ci sama kuréel gis nga bépp tere bu duggul ci ñett yi rek fala yaqtadi tahrima du dugg ci baatu lu xaraam bi ci des alquranul karim moo wax yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ne wa ma ataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yàlla nee na li leen yonent bi digal ni def leen def leen bu leen ca teg baat li mu leen tere ni bàyyi leen bàyyi leen bu leen ca teg baat ñu dellu ci wax bi yàlla dafa wax ni wa ma nahaakum anhu li mu leen tere waxul wa ma tarakahu fatrukuhu waxul li bàyyi bàyyi leen ko de déedéet mën na bàyyi mbir te fekk xaraamul waaye moom ci boppam moo ko bëggul moo ko dul def su boobaa bu ngeen ko defee te terewu leen ko du tax mu xaraam dinaa ci ñëw ci misaal wa ma nahaakum la wax loolu li koy firi moy li yonenti bi sallallahu alayhi wasallam sallam bañ koy laaj lu nañu di ko laaj lu nañu di ko laaj ndax nangam dagan na ndax nangam haram na ndax mën nañu def nangam lo xam ci ko def nangam mu jek jek ni zaruni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim fa ida amartukum bi cheyin fa'tuu minhu ma stataatum wa ida nahaytukum nahaytukum la wax an shay'in fatrukuhu wala ñi wax ni fadaawuhu bu ci ne ñëw na yenent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laaj yi bare yi mutu ko ndax man kenn feesul sama bët yàllaa ma yónni ci yoon ma nekk superviseur kon lépp lu ngeen def bu jaaduwul rek ma tere leen ko su jaadul rek ma téré len ko ndax yalla rek mo fess sama bët sañu ma gis ngeen di def wala ngeen di wax lu xaraam te ma len ko kon lepp lu ngeen def ma nopi ca rek jarul ngeen may laaj ndax dagan nam daganul Lolo, daf len won ni len mbir dana ko ñak def man te yen ngeen def ko ñak gi mako ñak def firiwul ni dafa haram. def bi ngeen ko def ma nopi ca day firi ni dafa dagan donte man defuma ko mu ni ndax damay bañ li daloon ñu leen jiitu dal leen waaw mooy lu nekk ñu laaj ko seen yonent yi ba noppi bu defee nag bu ñu leen teree loo xam ni dafa neex ci seen bakkan ñu indi aw lay di indi aw lay ba fafu fu ñoom waaw te ku wuuteeg li yàlla digle nag su boobaa alku moo coy topp moo tax mu ni fa ida amartukum bi shay'in fatu minhu mastataatum dégg nga su ma leen digalee aw yiw def leen ca la ngeen mën waxul def leen lépp de ndax Mawlana Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane si al maktum radiyallahu anhu nee na ku def li yonent bi def doon yonent bi te loolu mënul nekk kon Serigne Cheikh nee na ku yéene yiw def ca la nga mën sa jaan wàcc na la ca des du sa affaire tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni fa ida amartukum bi cheyin fa'tu minhu mastataatum su ma leen diggalee aw yiw def leen ca la ngeen mën fa ngeen mën a yem ngeen yem fa ne am na limite wa ida nahaytukum an shay'in nag fatrukuhu waaye lu ma leen tere nag baleen ko lépp amul lii leen ciy def wala lii leen ciy bàyyi déedéet bàyyi leen ko lépp kon loolu li muy wane rek mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa dina bàyyi mbir bañ ko def te fekk xaraamul ma tegtal leen ci ba tey dugg na ci néegu defe naa may Maymuna la Xaalid ibnul Walid fekk na lii li may nettali ñu taajal ko bool jigéen ñi ni e daw leen wax leen yonent bi li ngeen ko taajal ñam bi ngeen ko taajal lan la wax leen ko ni carrément ni ko mbëtt la ñu ni ko yaa rasulallah mbëtt la mu seppi loxoom ba mu set wax ni ah soppuma ko waaw wax ni soppuma ko waxul bëgguma ko de soppuma ko la wax tabaarakallaahu loolu ñu ngi ko jàng ci école Mawlana Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane ci al Maktoum radiyallahu anhu nee na nit ku waa nit ku baax du wax bëgguma ko waaye soppuma mbir mi lay wax soppuma ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seppi loxoom Xaalid ibnul Walid ni ko ndax dafa xaraam yaa rasulallah mu ni ko déedéet Xaalid tabaarakallaahu moom moo ca dem ba naan ñeex ma kon yenente bi bàyyi na lekk mbëtt mi sappi loxoom te xaalit continuer lekk ko te yenente bi terewu ko ko yenente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam du ma ko tere du ma ko lekk waaye du ma ko tere kon ak tarku la yaani tahrim yenente bi bàyyi na nangam defu ko firiwul ni loola dafa xaram ma ñëwaat ci misal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbale na mbir sax bàyyi ko muy salaatu tarawih yi ñu def ci weeru koor euh, naafila mbooloo def na ko ñu ni euh, euh, lim yu néew ñii ñett yoon ñiini ñaar yoon waaye mu xëy bàyyi ko ndax ragal yàlla farataal ko ci xeetam te duñu ko àttan koor dafa metti mu xëy bàyyi ko bu nu jullee gee yeewi nit ñi ku nekk dem ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn kon loolu defaatu ko sayidna abubakar radiallahu anhu sayidna umar radiallahu anhu moom moo ñëw ni nañu dajale mbooloo mi ni ñu jullee gee ñu ànd noonu naafila jamaahum ala ubay ibni kaab mu ni ni ñu jiitee gee ñëpp julli julleen ndoo harmonie boobu rafet na lool waaye nañu ko def ñëpp naafile ndoo ñu daal koy def ñëpp bokk naafile sayidna omar radiallahu anhu moo génnee ci gëmmiñam ni nicmatil bidaatu haadihi kon ñoom ñiy wax ni bidaa bu rafet amul ci lislaam kon wet dinañu sayiduna omar amirul muminin ndax moo ni bidaa bii day bidaa bu rafet la lu baax la ci loolu lañu sukkandiku ba tey ñun ñu ngi def euh, euh, naafile weeru koor ànd ko mboolo ñoom ñiy weddi ni bidaa bu rafet amul ñu ngi koy def di def salaatu euh, tarawih waaye bu leen arrangé ñu ni dagan na bu leen arrangé wul ñu ni daganul kooku benn la ci li doy waar mooy yeneen bi daf ko def ba noppi bako Seydina Omar ñëw dekkil ko kooku benn la mu muy lu leer nañ bi ci des moo di alquranul karim yàlla sunu borom waxul fenn ni na ngeen ko bind na ngeen ko jàng la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ba génn àdduna alquran kenn dajalewu ko mu nekk benn kaamil dafa tasaaroo te mënoon na ko dajale la avant muy génn àddina waaye defu ko bi yonent bi génnee àdduna ci xorobu ridda mooy ñi lankoon ni daal yonent bee taxoon ñuy sonn ganaaw yonent bi dem na duñu nangu kenn gën leen a yey ci mbir mi kenn yilif leen famille bu ne wut sa kilifa bopp wut sa xalifa bopp waaw Seydina Aboubacar laxasu ni nag la ngeen nanguloon yonent bi daa ngeen ma ko nangul wala ma jël seen bakkan baa ngeen jël sama bos ñu nemmeeku ni ñi mokkal alquran ñu bare ñu ngi doon dee ci xare yooyu sayidna umar radiallahu anhu ca gis-gis bu sore ba ñëw ni sayidna abubakar alquran la bëggoon ñu xalaat ci naka lañ koy dajale def ko muy benn téere balaa muy am lu ci rëcc sayidna abubakar ni ko ah, sañu ma def lu yonent bi deful santaanewu ko dégg nga yonent bi defu ko santaanewu ko waye comme sayyidna Omar borom xam-xam la te xam na ni sayyidna Aboubacar it borom xam-xam la te intérêt l'islam moko gënal intérêt bopam muy def sa yu jullee gé ba nopi rek bot loxom doxantu dem kër Seydina Aboubacar radiyallahu anhuma ni ko wa do xalaat ci alquran lima la wax waaw Seydina Aboubacar xalaat ci xalaat ci woo Seydina Omar ni ka li nga wax d'accord naa ci yonent bi defu ko santaanewu ko gis naa ni bu ñu ko defee daañu dimbali ñay ñëw ëllëg te mooy ñu fexe ba wattu ko def ko ci muy benn téere ndax bañ mu tasaaroo dina tax ñu sàmm njàngin wi dina tax itam mu mucc ci yàq-yàq yi dina tax itam génération yooyu ñëwi ëllëg mën caa jot kon kooku bidaa la waaye bidaa mustaxsana la bu dee bidaa mooy lu ñu sos gannaaw yonent bi kon dajale alquran def ko benn téere kon bidaa la Euh, benen bi ci dess mo yenent bi defu ko wu ko alquranul karim ni mu wacce ken maasu ko ken tombu ko suñu mako joxon tay duma ci man jang ben aya sayyidna abubakar radiyallahu anhu tombuko ko maasu ko du sayyidna omar tombu ko maasu ko sayyidna usman tombu ko ko sayyidna aliyin tombu ko maasu ko xam ngeen kan moko tombulu benn inspecteur de police bu ñuy wax Hajjaaj ibnu Yuusuf waaw Hajjaaj moo sant Nasr ibnu Asim ni ko nañu tomb alquran ndax ñu ngi koy jànge ñu ngi koy yàq fa abaw an yudayifuhuma coyant yàlla Moussa ak Seydina Xadir ñu koy jànge fa abaw an yudayiquhuma dayafa mooy ganale na teeru gan teral ko dalal ko bay yàq mooy xatal na kon nag li leen wuutale mooy benn tomb bi ci kaw muy dayyafa ak dayyaqa muy ñaari tomb kom na kenn tomb ko woon boo ciy jàng te fekkewuloo woon cosaanu wàcc ga fekkewuloo woon ci saxaaba yam wàccoon yonent bi daan ko jàng seen kanam ñu koy jàng lislaam yaatu na jullit ñi bare na alquran génn na ci réew arab yi dugg fu ne ci àddina bi ñuy jàq njàngin woowu ñu kon nañ ko wutal solution bala muy lang ci làmbiñ yi kon Hajjaaj ibnu Yuusuf moo santaane ñu tomb ko bi ci des moo di kenn maasu ko woon abul aswad ad-du'ali ci wàllu naxwu moom moo ci def yitte ba i'raab lu ci nekk tomb bu ci nekk bu dee fatxa la bu dee damma la bu dee kasra la lu mu mën a doon mu tekk fa mu ko war a teg moom ngeen di gis Mawlana Cheikh Alxaaji Malik si radiallahu anhu ca xam-xam bu rëy ba waaw mu koy wax ca nuuni yam ba waaw walil xajjaaji wa du'ali naqtun wa shaklun bil qiraani wa bil qatiini waaw mu ne xajjaaj ibnu yuusuf moom moo tombulu alquranul karim abul aswad addu ali moom moo commencé kon loolu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defu ko santaanewu ko te terewul def nañu ko terewul ba tey jii ñu ngi koy jàng amul benn borom xam-xam bu ñeme bind ni dafa xaraam waruñu ko woon def wala teguñu ko ci sunna teguñu ko ci santaane yàlla sunu borom ah bi may tëjee nag mooy question la bu ma leen di laaj ñoom nañ ma wax ci yonent bi wala saxaaba yi kan ci ñoom moo mos a teg alquran di ko jaay aaya alquran wala saaru alquran wala kaamilu alquran di ko jaay vente aux enchères ba di ci def un million ci kaamilu alquran nan dañ koy jënd naan histoire dana ko bind ndax loolu bidaa la wala du bidaa seen mbokk alxaaji Abdoul Aziz Fall moo leen di nuyu